ñuy waajal màggaluk poroxaan édition 2020 ni nga xam ne at mu jot Serigne Moustapha Mbacke Abbas noonu la ko daan amalee ànd kooku mbooleem taalibey murit yi nga xam ne dañoo nekk ci kaw Kaolack àndandoo ñoom ñëpp doon benn ngir dem ci dëkk bu sell ba daal di koy seetal ngir teertu ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan ñi lii nag di ndigal loo xam ne Serigne Mountakha Mbacke Bassirou moom moo ko joxoon depuis atum 2008. liggéey bi saa su ne di yokk bu baax a baax moo xam ci limub taalibe yi nga xam ne dañuy ànd ak moom ñëw ci mbale mi ci jumtukaay yi ak lépp loo xam ne mbale mi laaj na ko bi ñu xëyee rek ci dimanche ji lañ def mbooloo mu takk lool daal di kaw Kaolack ànd ak Serigne Moustapha Mbacké Abbas bi ñu agsee fi nga xam ne moo di ci poroxaan ñu tas leen ci biir dëkk bi wet gu ne ñu am ñu ñu fa faralee ngir liggéey bi gaaw lool Serigne Moustapha Mbacké Abbas nag santaat bu baax ci taxawaayub taalibey murid yi nga xam ne saa su ne dañuy wane Pastef jëmee ci mbale mile. ñu ngi leen di nuyu bu baax tey ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko cosaanu bi ci ñi nga xamee ne Cheikh Moustapha Bachirou ñibbi na aljanna ci 2018 màggal bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha njëkk màggal fii ci Poroxaan nekk Serigne Bachirou dañu fee ñëwoon ziyaare si ko am ay barkeelu ci cere yuñ ko defaraloon doon ko indi ñu ñëwee ñu gis dëkk bi am aw melo ñu waxtaan ci ak sëriñ bi mm, ngir amoon yéene yi defar dëkk bi am yéene yi di ko di ko bale mu daal di ma ne ah loolu de am na solo lool su ngeen ko defee de defal ngeen ko soxna si defal ngeen ko Serigne Bassirou defal ngeen ko Serigne Touba waaye defal ngeen ma ko mu jox ñu ci ndigal booba ba léegi ci 2008 at mu jot ñu ànd ak taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal gi yëpp rawatina bokk taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee Kaolack ñu ñëw di bale si dëkk bi 2008 daal moom lañ ko tàmbali ba ñoo ngi ren ci 2020 incha allah cosaan li daal mooy ndigal loo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moonu ko joxoon ci jamonoy deux mille deux mille huit ngir ñu ànd ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ngir ñëw di setal si. fii nga xam ne moo di dëkkub soxna jaariyatullaahi Mariam bi di ko waajalee màggal gi nga xam ne ci lañ koy fàttaliku ci la ñuy fàttaliku jàmbaari islam jooju yi nga xam ne dafa xare ba daanu ci suuf su tedd si màggal suuf si nga xam ne borom téere dañuy wax ne am na ñoo xam ne ñoo maanaam kam min abin qad ala bibnin zoro sharafin kama alat bi rasulillahi adnaanu suufus poroxaan noonu la mel ci soxna jaara ku tudd poroxaan xam ne tedd ngay soxna jaar ak mbaaxu soxna jaara fu poroxaan yegg soxna see ko fa yeggal waaw te mu jëmm joo xam ne yi tamit euh, ku tedd ki waxoon na ne Poroxaan ku fa ne juun ma fekk la fa soo ma fa fekkul tamit danaa la fa fekk loolu day mel ni taarix da koy door a dundal taarix da koy door a dundal ndax kenn koo xamee ne mas naa ci ñi jiitu woon ak lii ñuy baax baax ku fi mas a nekk doon sëñ Tuubaa yilif Poroxaan nga xam ne yaay sëñ yilif Poroxaan loolu amagul woon ci jamono ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ji la tàmbale nekk sëñ Tuubaa ba noppi moom Poroxaan kon la sëñ Tuubaa waxoon ne Poroxaan soo ma ne fee soo fi ne juun soo ma fekkul ma fekk la fi loolu sëñ Muntaxaa moo ko wane ndax tey mooy sëñ Tuubaa ma noppi nekk Poroxaan kon sëñ Tuubaa moo dellusiwaat Poroxaan waaw kon de waaw alhamdulilah rabbil alamin mbir mu nekk eh, dañuy wax ne tubaab yi li ñu rawee nit ñi mooy waxtaan réunion moo tax bi ñu xamee loolu yi tamit ñu fexe ba mboole mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo nekk Kaolack te yor ay daayira maam jaara ñu fexe ba waxtaan ak ñoom fenn fu ñu jël fa aw nit def benn commission boo xam ne comité boo xam ne comité mbalem poroxaan la tudd euh, ñoo ñu ñooy def at mi fukki weer ak ñaar ñuy dajee suñu demee ba mbalem mi des weer nag ñu dem di def ay sorties def ay projection de film di dem ci quartier yi di leeral nit ñi lan mooy liggéey bi ak liggéey bi fi mu toll Cheikh Mouhamadul taxaar ñu di ci dem di ci waxtaan ak ñoom di di di di di fexe ba bu njëkk benn depart la woon. muy passoire lañ daan déparé ñëpp waaye ñu xam ne nit ñëpp bu ñu bëggee déparé ci quartier yi sori yi ci kaw Kaolack ñëw di ñëw passoire di fa déparé dina mujj ñuy naaje ñu mujj daayira yi nga xam ne dañoo organisé wu mbooloo organisé wu ñuy ñu di leen yebal ay biis tey soo demee Touba Ndor ak extension ñetti biis jóge na fa marché Ocass ay biis jóge na fa tu penc ma ay biis jóge na fa Medina Baye ay biis jóge na fa Medina Mbaba ay biis jóge na fa Koutal ay biis jóge na fa Sibassor ay biis jóge na fa Boustane ay bus jóge na fa Saara Ndiougaar ay bus jóge na fa booleeg départ bu mag bi nga xam ne mooy passoire ci rond point Serigne Mountakha bi lu mat fukki bus ak juróom jóge nañ fa tey bokk ak camion ñeenti camion yu mag nga xam ne moo jógee ñett yu jógee Dakar euh, bi nga xam ne moo jógee Kaolack ñoom ñëpp fa lañ déparé oto yu ndaw yi ak waa waa waa Kaolack set wecc ànd ko ak ñun mairie bi wax dëgg yàlla jàpp lañu ci ba ñëpp gis nga ñoom ñi ngi fi ci liggéey bi indi seen i oto ànd ko ak ñun loolu daal ci wàllu organisation noonu lañ ko organiser su dee ci wàllu matériel yi tamit liggéeyal Serigne Touba la yoruñu budget boo xamee ne dañ koy yëkkati ñu ne lii waaye nag Serigne bi ma manqué wu dara te daraam du jeex gannaaw daraam jeexul nag saa suñu bëggee dara dañuy wax ne nangam lañ bëgg rek Serigne bi amoon ko ba ci nun ren bi ñuy tàmbali mbale mi jëwriñ yaa ngi nii ndax bagage yi ñu amoon daaw bi ñu balee ba noppi nit ñi dañ ko barkeloo woon yoruñu woon benn bagage bi ñuy tàmbali liggéey bi ñu ne ren di am nañu jafe-jafe jafe-jafe ay ñu jokkoo ceeg bokki taalibe yi waa ne li ñu am ren ci ay bagages mosuñu ko am. am nañ am nañ am nañ ay bale li ñu yor ci bale su matul juróom-ñetti téeméeri bale mat na ko ak juróom-ñaar téeméeri euh, juróomi juróom lu toll ci juróom téeméeri rato ak ay peel ak ay buret ak bagage yu bare bare bari boole gi fi desoon daaw yi tamit ñu koy génn ko ànd ko ak nit ñi xanaa kay dañ si tàllalaat dañuy tàllalaat nit ñi taalibe yi loxo ci liggéey bi ndax mbooloo mi fi nekk ñi yorub liggéeyukaay mopp ñi ko yor te teewul li ma la wax ni indi nañ lu mën ñetti junniy liggéeyukaay li ñu wax ni boo ko boo ko li fi desoon daaw dana mën ñetti junniy liggéeyukaay léegi te boo xoolee mbooloo mi ñu cëpp yoruñu liggéeyukaay kon nag mbooloo mu toll ni kenn ku nekk su yoroon liggéeyukaay mel na ni ngir ñu bale poroxaan ci 30 minutes loolu xaju ci ndax kenn ku nekk su bale woon 4 mètres carrés ci ñetti junniy nit loolu ëpp na poroxaan waaye nag ñàkk mooy yi tamit fekk si nañu mi ñu si fekk si kon ñu si tàllal ko képp koo xam ne euh, liggéey sëñ Tuubaa ñor na la te nga bëgg ko te am yéene ànd ko ak noonu tamit ñoo ngi lay ñaan loo si mën nga def ko ci wàllu matériel soxlawuñ nag xaalis ñun soxlawuñ benn dërëm ku mën a jënd bale wala rato wala peel wala buret mu jënd ko indi waaye bu nu kenn jox benn dërëm soxlawun benn dërëm li ñu yittewoo sëriñ Tuubaa dañu ko defal waaye nag jumtukaay boo xam ne dañ bi loolu rek lañ bëgg si fekk si kon ñu si ne euh, liggéey sëriñ Tuubaa ñor na la nga bëgg ko te am yéene ànd ko ak nuni ñoo ngi lay ñaan loo si mën nga def ko ci wàllu matériel soxlawuñ nag xaalis ñun soxlawuñ benn dërëm ku mën a jënd bale wala rato wala peel wala buret mu jënd ko indi waaye bu kenn jox benn dërëm soxlawun li ñu yittewoo sëriñ Tuubaa dañu ko defal waaye nag jumtukaay boo xam ne dañ ci liggéey la sëriñ bi loolu rek lañ bëgg waaw mbirum sëñ Tuubaa moom tàmbali rek la am waaye fa mu yemi la kenn xamagul daaw am na ñu jógee ba Italie ñoo bale si ñoo xam ne mbalem rek moo leen taxoon a ren jii am na ñoo xam ne ñi ngi fii ci mbooloo mi Italie lañ jógee waaw sëñ bi mii rakkam Italie di jógee mu ngi ñëw ci mbale mi sëriñ Bachirou sama rakk mi dakaar la jógee ànd ak sama mbokk yu baax yi jógee jógee jógee fenn fu nekk nit ñaa ngi fay jógee di ñëw dafa tolloog nag ne liggéey sëriñ moom moo toll noonu yow daal sëriñ bi da lay teg ca kanam waaye ñamu ñamu ñamu ñamuy takk seen laxasaay ñu ñëw di ko liggéey si loolu mbirum sëriñ bi waaw ah, mbirum sëriñ bee kon nag dañuy sant bu baax nag sëriñ Muntaxa ndax moom dafa neex a liggéeyal waaw ah, dafa neex a liggéeyal lool lool lool ndax liggéey bi da liggéeyam te da ko ñor lool lool lool ñor googu dama ci dul man a xuus waa ne xam naa ne liggéey bi ñor na ko xam naa liggéey bi ñor na ko lool ba saa su ne mu di ñu ci nemmee ko gis ngeen daaw bi nu see ba noppi bi ñuy bëgg a bale ji bi ma demee Touba ne ko dimanche day lañ jàpp dem bale ji muy le 10 le mars mu ne ma ah le 10 mars de man de le 11 laa fas yéene woon a dem Poroxaan ma ne ko mu ne ma kon de xanaa su may dem danaa fajaar ñaanal bokki taalibe yi mu dagg ay yitteem ñëw ba passoir fa ñuy déparé fekk fa taalibe yëpp ñëw yeewi si leen ren bi mu ñëwee Kaolack itamit jëf jooju mu jëfoon daaw mu feddiliwaat ñu ko ñan la ko defal muy ñun ñuy bale si Porokhane ñëwaat ba ca kër ga ñaanal si waat bokki taalibe yi yeewi leen ñaanal leen loolu nag lan moo ko may lan moo nu ko may xidma waaw xidma tuuba li abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati kon xidma boobu ci lay woo kenn ku nekk te xam ne luy jëriñ nit ki Sëñ Tuubaa mooy liggéey ñàkk jëriñu loolu Cheikh Ibra woon ku mu mën a doon ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa UCG ñoom it ñëw nañ daal di jàppale sëriñ bi ci mbale mi indi fii ay jumtukaay ak lépp loo xam ne mbale mi laaj na ko ci wàllum organisation man maa ngi tudd Moussa Ba coordonnateur par intérim de l'unité de coordination de gestion des déchets pool Kaolack ñu ngi fii ci ci ci Porokhane doon ñëw ci mbale mi comme ñu koy defee at bu ne di indi suñu ndimbal ak suñu njàppal comme ni ñu koy defee at bu nekk donc ñu ngi fi sax suñu équipe ñu ngi fi depuis ajjuma si ngoon lu ñëwoon nañ fi altine def fi benn pin euh, plan d'intervention euh, de nettoiement donc tey ji ñu ñëw fekk fi suñu équipe yi ah ni ñëw di contrôler pour xool ba xam liggéey bi nan lay doxee am comme ni ñu koy defee rek euh, lépp bépp dépôt ak bépp mbalit avant pendant et après UCG war ko taxaw pour pour pour que lépp jaar si yoon si gàttal. waaw loolu comme ni nga ko waxee euh, question bu baax la ndax euh, bu ñu koy coordonné mooy dafa am comité d'organisation bu fi nekk ñun bu ñëwee ñoom lañuy ñuy tëral plan depuis ci CRD ba ci kanam gouverneur ni ñu ko tëralee lépp jëm ci matériel lourd bi moo fi jiitu. waaye bu weesoo tey suba andi nañ fi matériel petit matériel bi nga xam ne mooy accompagner matériel lourd bi ndax mbirum mbalit noon la ku ne xam ne euh, déchet bu oyof la waaye dafa laaj dajale donc moo tax dañu àndaale ay brouette pelle râteau fourche lépp loo xalaat loo xamante ne dafa war a ànd ak mbale mi rek ñun dañ ko moom la ñu àndaale tey suba euh, teel fee yegg si jébbal ko ñu nga xam ne ñoom lañ ko war a jébbal ñu tàmbali liggéey bi comme ni nga gisee suñuy camion yeeg suñuy suñuy suñuy suñu agent lourd yeeg ñëpp ñu ñu bokk ci liggéey bi. Euh, gis nga mbirum comme ni ko président waxee mbirum zéro déchet Sénégal zéro déchet projet la boo xamante ne bu am solo bu ambitieux la fekk na kaw lax tamit xaw see am ak jiitu bu bu ndaw ndax euh, ku ne dégg na CIVD bi nga xam ne ñu ngi koy def Latmingué ak PRN yi nga xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy tabax foofu te loolu bu boobaa mbalit ji jóge fii ba fii ba Porokhane sax mën naa agsi foofu te dañ koy traité mu mën a amal njëriñ askan wi mën a amal njëriñ Sénégal waaye surtout setal suñu dëkk waaw loolu am solo la ci loo xamante ne mënuñu koo ñàkk wax ginnaaw bi biñ yendoo poroxaan ak sëriñ Moustapha Mbacke Abbas ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyee ko woon Kaolack seetal nañ dëkkub soxna jaara bi ni nga xam ne at mu jot noonu lañ koy defee ngir waajal màggal gi nga xam ne mi ngi fas yéene doon le 5 mars 2020